yéen gars yi ñu ngi ni leen bégee di kontaan bu baax a baax yéen ñi nga xam yéen a siiwul seen soir waaye nag gis ngeen de gis ngeen de ñetti ñi seen diggante muy dugal dugal xam ngeen ni mooy seexu dabi bi te dabi dafa génn àdduna ak oris ak sangumal waaye nag dugal moom nee naa sangumal bis ne ki tey na nga xam ni sa jàmm jeex na si kaw suuf bis ne ki tey na xam ni yow man bala ma am jàmm mooy yow nga génn àdduna mais nag dugal ndax combat bi dina yomb si moom non non moom combat bi du yomb si moom ni Balla ku xam ne ni dafa capable quoi kon pour euh, dugal dem ba gagné combat bi kon du yomb mais Oris tamit moom nee na ko yow combat bi bu dee da nga kaa naka noonu xam ak ni man jigéen bi man maay jug ah, jàkkaaroo ak Sangomar mais dugal moom nee ko noonu Sangomar yow soo ko bañee benn man xamal ni bañ naa ko fukk quoi parce que euh, Sangomar euh, dugal nee na li mu dafa parce que son xoolee mm, dab ah génne àdduna bi Sangomar seetu si mais Auris moom ba mu ko waxee Dugal ba tey Dugal amatul jàmm Auris ba mu ko waxee Dugal ne deewu dabi bi Sangomar moom seetu parce que mm, dabi mm, ñàkk bët yi mu ñàkk bët moo ko ko teg boobu ba tey Dugal amul jàmm boobu ba tey Dugal mi ngi def bépp pexe nag pour Sangomar tamit moom faatu daal di dem. fekk ji ki nga xam ni mooy dabi mais sangu nag ñu gagné ko si combat bi ah, modu yoon comme ni man leen ko waxee woon mais dugal nag moom moom moom dina insister dina dem ba jeex ba jeex quoi parce que nag son xoolee ñoom ñaar seen diggante dafa yàgg ñoom ñaar seen diggante nii la ma si mel son xoolee ah, dugal ak euh, sangu mal ñoom ñaar mën naa wax ni xamante bu baax mën naa wax ne xamante wuñ bu baax waaye nag ba dabi génne àdduna ba tey ah, ki nga xam ne mooy Louga ni ngi koy commencé seet ba xam ne mooy kan ma ah. te tamit xam na ay secret yu bëri si moom ba xam ne nit Sangomar amoon na ak benn doom boo xam ne mi koy nëbbu Dura Gaal moom nee na Sangomar moom nan na ko teg gàcce si si digg dëkk bi ñëpp xam ko te Sangomar xam ngeen ni moom mi ngi si affaire de politique te Dura nee ko yooyu yëpp yow di ko bàyyi te dinaa samay pexe yow ba ñëpp xam ne yow nit ku bon nga ba xam yow doo nit baax waaye nag Sangomar nee na ko yow bu dee am nga fi daal. xaw ñu gisee mais Duga ak moom nee ko man hmm, mais Duga moom ñemewutoo euh, gisee ak Sangomar loolu nag moom mooy posé problème bi parce que nit ki sooy mën a combat moom yow bu dee ñeme nga bu dee dëgg nga sa bopp moom faaw nga gisee ak moom parce que soo xoolee Duga mi ngi taxaw si benn montagne bu kawe Sangomar moom gisu ko mais Duga. mu ngi ko gis mais sànguwaan tamit xam nga ni dafa am fit parce que nit ki woor a fu nekk woor a si benn ah, désert boo xam ni benn nit nekku fa nga dem fekki ko loolu moom ko am fit dégg moo koy def te dugaag moom war naa xam ni moom sànguwaan bu dee fit ah, am na ko te bu dee capable moom moom dafa fees del quoi kon dugaag daal moom xam bi pour mu gagné ko moom du yomb mais nag néew ma ah, du ko mën a gagné mais tamit mën na ko gagné mais ba ma ko gagné tamit dina sonn. waaw waaw waaw dina sonn mais Sangomar tamit moom xam ngeen ni moom moom comme ni ma leen ko waxee woon pour nga gañ ko si combat moom moom moom xam ngeen ni bañkat la te moom day dem ba jeex tàkk kii mooy Sangomar waaw ku ko xamul nag mooy dangaa seetaanoon ah, wéeru wéeru quoi son xoolee ah wéeru xam ngeen ni moo ko seexu naa moom noonu la mosoon a mel dañ doon dem ba jeex ñàkkante ba jeex quoi waaw man moom ñaar ñi moom dañ maa neex quoi muy Dugar ak Sangomar vraiment muy Zozo ak Seexuna quoi ñoom ñaar moom moom dañoo aay comme ni ma leen koy waxee ay acteurs vrai acteurs lañu quoi ñaar ñi série buñ nekk dafay neex soo xoolee nag soit na gars yi neex na mais soit soit neex na neex na parce que soit soo koy seetaan da ciy sa bopp bu baax a baax da xam ne lii moom série sénégalaise la quoi mais soit moom gars yi maa ngi wax képp koo xam ne abonné ko nga abonné yeneen analyse ñu ngi ñëw si soit ah jaa ngeen